profiter di remercier xalif euh, général euh, di ñaan yàlla teg ko suñu kanam lu yàgg yàgg mu ànd ak wér euh, ñu continuer di participer ci màggal bi nga xam ne aujourd'hui màg màggalu àdduna yëpp la màggal bi yëg fekk nag non seulement Covid 19 bi mais tombé aussi. Euh, ci hivernage euh, saison des pluies euh, ñu ànd nag ak fondation port de Dakar nga xam ne fondation bu ñuy soog a créer mu liggéey si liggéey yu am solo ci diir bu ndaw tey ñu ñëw indi fii ñetti motopompe yu am am doole yoo xam ne tey rek tey nii rek tey incha allah. Euh, pompe yi dinañu dinañu commencé euh, liggéey euh, ñu indi tamit lépp li nga xam ne ay jumtukaay la yu nit ñi mën a jëfandikoo pour éviter feebar bi law ci ci dëkk bi muy Covid 19 bi muy nekk ay ay ay gel mais ñu indi ndox aussi ku xam ne gel ak ak ndox day am solo lool. Euh, ci jamono yi ñuy ñuy toll euh, ñu war am nag projet tamit euh, ci Porokhane pour daara Maam Jaara bi nga xam ne loolu aussi am na yu am solo yuñ fa war a yóbbu fan yi pour wane rek ne lépp loo nga xam ne ñi ngi ciy yëngatu si Touba port de Dakar à travers fondation bi dina ci def kéemtalaay kàttan pour accompagner liggéey bi nga xam ne euh, sëriñ bi euh, mu ngi koy def ci ci Touba di ko def ci Sénégal yi am euh, xam nga Touba c'est la deuxième ville du Sénégal ba nga xam ne économie tamit marchandises yi ñëw ci port de Dakar ginnaaw Dakar li ci ëpp Touba lay ñëw ce qui fait que port de Dakar dañu am xalaat Euh, bi nga xam ne marchandise yi euh, du ñu wax ne rek yegg si na génn na port de Dakar rek génn na suñu loxo euh, ñu suñu yoon nekkatu ci dañuy ne léegi dañuy gunge marchandise bi ba bërëb bi muy bi muy dem ñu taamu ci nag commencé ko Touba incha allah nga xam ne dinañ bëgg fi bëgg fi am bërëb boo xam ne marchandise yi bu ñu ñëwee waaye camion yi tamit bu ñëwee. Euh, dinañu fekkee dinañu am fu ñu leen ni fu ñuy parqué wu mais marchandises yi aussi dinañ leen dugal ci ay hangar euh, sec ak froid nga xam ne euh, durée bi mën na yàgg yu mel ne ay ay pomme de terre wala soble nga xam ne dañ koy bay sax muy am problème bu ñu defee loolu incha allah dina am ay béréb yoo xam ne daal nit ñi dinañ ko mën a stocké di ko génnee saa bi nga xam ne ne c'est approprié pour ñu pour ñu pour ñu génne ko loolu incha allah ci weer yi di ñëw danañ ko loolu dañu bëgg mu yegg si fii jaar ci train bi euh, ba ba ci euh, port euh, sec boobu ñu bëgg a def commerçant yi gis ci seen bopp ñu yore transporteurs yi gis ci seen bopp population yi gis ci seen bopp incha